salaamaaleykum mbokki kaarange ngeen yi nga xam ne yéen a baaxoo di déglu li nga xamante ni moom mooy suñu TV di ko seetaan euh, fépp nga xamante ne ngay seetaan si àdduna wërngal këpp tey nag ñu ñëwoon dalal suñu benn artiste yi nga xamante ni euh, moo nekk si diwaanu kaarang ñu gën koo xam si Zal Barigo Zal ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay DJ Bacha. waaw Zal euh, ñu bëggoon xam rek li nga xamante ni moom mooy sa carrière musicale li nga xamante ni ñu ngi koy dégg saa su nekk fu nekk ñu koy dégg ci àdduna wërngal këpp euh, Zal ñu bëggoon xam rek carrière bi nga xamante ni moom nga nekk nii euh, nan nga ci dooree ak lan moo la ci xiir ok asalaamaaleykum wa rahmatullah avant tout may nuyu ñëpp di nuyu Karang di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu Gambie bon di wax rek man maa ngi tudd Zal Barigo nekk artiste musicien et comédien di gërëm aussi sama gars yi nga xam ne ñoom ñoo ñu fekk ci plateau bi muy Isidore ak euh, Abou di wax ne Zal Barigo dafa nekk benn jeune artiste bu nga xam ne mu ngi fii ci diwaanu Karang commune de Karang département de Foundiougne région de Fatick may œuvre ci ñaari domaine euh, ci biir art bi muy comédie ak musique comédie bi nag bu ma commencé yàgg na ndax mun naa ne dafa nekk lu naa dama ko judduwaale ñi nga xam ne ñoo ma yore à l'école primaire mun nañ ko seede ci laa nekk nekk ba sama CM ci laa commencé nag di si œuvre bu ma nekkee en classe de sixième commencé di si di si foo di ñu may invité ay Fosco ba bu ma duggee biir Croix Rouge euh, macha allah camp yi ñuy dem affaire yooyu noonu ma dem ba camp yooyu ñuy dem ma commencé ma ne pourquoi pas ma may croise benn affaire mooy génne leen benn single jàppee ko benn caaxaan nii rek comprendre nga bu ma génnee single bi single bi nag def bum ma bokk ci benn compétition bu ñu naan king border maam euh, le king de la frontière ci biir compétition boobu noonu ma gàdd raw gàddu gi bu ma gàddoo raw gàddu gi ma ne léegi nag caaxaan amatul ci farlu commencé loolu mooy indi sama carrière artistique waaw da laal point bu am solo ko parce que man su ma euh, dégloo li nga xamante ni mooy c'est musique euh, da njëkk a wéy croix rouge croix rouge son croix rouge boobu ngoon nga wéy noonu mu nekk loo xamante ni dafa raaroon pour nit wéy li nga xamante moom mooy croix rouge est-ce que son boobu noonu bi nga ko wéyee waa croix rouge amel nañ la si njukkal boo xam ne defal nañ la ko waa tey mun naa ne succès bu Zale Barigo am c'est grâce à la croix rouge waaw li ñuy wax rek euh, lu métti métti métti nañu wax dëgg rek tey zaal bu ko Sénégal yëpp xamee c'est grâce à la croix tey single boobu ma def waa Fatick xam ma ci ma def beneen single ñeneen ak ñeneen xam ma ci ba actuellement macha allah région boo dem boo ne zaal barigo xam nañu donc loolu courage moo ko waral donc peut-être joxuñ ma xaalis mais dañ ne nit ñi ñoo ëpp alal nit ñi rek ay alal lañ. donc nit ñi yooyu ma si am ak connaissance boobu nga xam ne am naa ko si man moo ma gënal xaalis daal loolu daal laa am lu may wax si côté boobu noonu apporté na ma lu bëree bëri bëri bëri. waaw bàyyiwuma la ba léegi dama gis ne léegi aussi Croix Rouge euh, dama seetaan benn benn vidéo boo xamante ni euh, wax Croix daje si kaw ndaje boobu ma gis Zal Barigo taxaw si ko chaîne bi ñu koy jox ab trophée trophée boobu noonu tey euh, lan la woon ak euh, lan moo waraloon trophée boobu. waaw boobu noonu yaakaar naa ne war na nekk lu nga xam ne waa Kaarang yëpp waroon nañ cee teg bët waa departement bu Foundiougne waa Fatick parce que mën naa ne dafa mel ni dañoo fubali woon coupe du monde rek indi ndam li ndax dafa nekkoon benn concours national bu nga xam ne dañ ko organiser woon si hmm, biir concours national boobu noonu. ñu teg ay trophée ci trophée boobu noonu mu am ay catégorie ci catégorie mu def lu nga xam ne mooy vidéo maanaam sonore ma jël première prix bi trophée boobu moo nekk nii donc yaakaar naa ne un concours national un fils de Karang mu daal di euh, jël lu nga xam ne mooy premier prix indi ko biir Karang loolu ab honneur la bu nga xam ne waa Karang yëpp war nañ see teg seen bët mooy trophée bi bii nii waa Kaaraange war nañ cee teg seen bët waa waa waa département bu Foundiougne war nañ cee teg seen bët waa waa région bi war nañ ci teg seen bët waaw trophée bi moo nekk nii di koy jagleel képp ku nga xam ne mos ngaa sonn si bërigo mus ngaa xalaat bërigo maam fan si yëpp di leen jagleel trophée bi waaw moo nekk noonu daal waaw trophée bi yaakaar naa gis ngeen ko yéen yi nga xamante yéen a baaxoo di déglu sunu TV di ko seetaan à travers du monde entier euh, li nekk daf mooy wane ne farlu rek moo am solo te aussi doomi kaarang la doomu kaarang yi yaakaar na ne kii nga xamante yi moom mooy Zal Barigo kon jar na jàppale lii rek doy na ndam nga xamante yi moom mooy biir kaarang waaye Zal Barigo ma gis ne ba léegi nii programme saa yoo ko amee rek ku nekk si biir kaarang ak li ko wër ak li nga xamante mooy àdduna wërngal këpp Euh, dañoo kii ki nga xamante moom mooy programme Zal Barigo loolu nu mu demee noonu ndax danga nga génne album wala nu mu demee noonu. non Zal Barigo génnewu sax wax ma laa album nag donc yàlla dafa def lépp looy def nga ànd seeg amour nga wàcce sa bopp jàpp ne gënoo kenn sa waay mooy loolu maam foo woote rek nit ñi dañ lay fekk si man nit yàlla dafa def Sénégal yëpp buggal ma seen bopp nekkul dama jox kenn suukar mu lekk mais peut sama relation ak ñoom. wala lu nga xam ne loolu laa leen jiw moo ko waral tey balaa nga ko doon xam programme bi ñu organisé woon te mu xomm ndax euh, si jamono yi ñu nekk. waaw konoon adduna bi yëpp a fi doon teew waxuma la Sénégal mais réew mi nga xam ne suñu naatango la sax ay su ñuy mbokk gaam yi ñoom ñëpp pare woon nañ pour teew donc yaakaar naa ne loolu comme ni ma la ko waxee rek du lu ma leen jox mais lu ñu fekk la waaw loolu la Euh, nga tudd li nga xamante ni dafa am solo euh, ak ñu gis artistes yi aussi ñu ngi siy lu métti lan nga siy wax si li nga xamante ni moom mooy li xew si àdduna wërngal këpp muy Covid bi nga xamante ni moo laal ñëpp lan nga ci wax en tant que artiste. waaw loolu lu ma si wax rek mun naa ne Covid bi ñun artistes yi mun naa ne ñoo ci gën a dee quoi parce que déjà presque yow comme événement moo métti. nga xalaat frais yu ñu ci def dépense yu ñu ci def nga prévoir dem bay waajal desul dul une semaine ñu la mën a toog koo tëgg lu nga xam ne financé woon nga ko yëpp nga perte ko donc yaakaar na loolu dara gënu koo métti mais ñu koy sante yàlla di wax nit ñi ne ndax événement boobu nekkul lu ñu lu ñu fomm dañ ko reporté ñu waajalaat ko dina amaat di sant yàlla rek di wax di ñaan yàlla covid bi gaaw jeex fi waaw ñëpp dellu seeni activité daal loolu daal la am ma ciy wax bon di wax ne dégg nañ kàddu yi nga xamante ni moom nga ci wax aussi rafetlu nañ ko bu baax a baax waaye nag euh, dama gis ñaari gaa yoo xamante ni ñu ngi toog te su ma jumul aussi ci euh, palaato bi euh, yow la bu si fi nga xamante moom mooy plateau kii ñu koy wax nag Abou Abou Mar. waaw keneen kii. Isidore Isidore. Mm-hmm. voilà Isidore mënoon naa am benn question bu ma la posé si daal bari Isidore kii nga xamante ni moom mooy seen artiste di Zalberigo ma gis nga accompagné ko fi nga xamante ni moom mooy plateau bi euh, Isidore lan ngay wax li nga xamante ni moom mooy Zalberigo li nga xam ci moom si carrière musicale. Euh, musique bi muy def euh, rafet na waaw kontaan nañ ci ñun jeunes yi tamit war nañ ko mën a jàppale ci musique bi pour mu mën a def dara rek ñun ñoo leen mën a jàppale pour ñu dem. waaw parce que tey jii nii ku mel ni Zale Barigny ñu xam ko fii nii Kaarang mu doon koo xamante ne moo ñuy représenté fii Kaarang dañ ko war a jàppale ñaari loxo pour lépp mën a avancer mën a dem waaw kontaan nañ trop si musique bi ñuy def nii ñun Kaarang yëpp kontaan nañ si émission yi ñuy def musique yi ñuy def théâtre yi ñuy def yëpp kontaan nañ si bu baax a baax ci suñu suñu frère la suñu mag la tamit waaw dañ ko war a jàppale tamit dëgg la kon bu ko defee ñu seet ki nga xamante ni moom mooy Abdou Mar Adoumar euh, ki nga xamante ni moom mooy seen artiste bi nga xamante ni moom mooy accompagné ci plateau bi Adoumar lan nga gisee li nga xamante ni moom mooy euh, euh, carrière am ci biir musique Sénégal ak àdduna wërndal kër. avant tout dañuy Sénégal yëpp. Mhm. di daal. mooy loolu daal moom mhm. ah, mu avancé rek lañ gis moom mais gisuñ muy dellu ginnaaw moom. Ah, dama yaakaar ne lii nga xamante moom mooy trophée bi mu leen tegal nan la def si yéen après bi ngeen gisee ñu jox ko trophée bi. ah trophée bi xanaa ah, dañ si kontaan rek parce que lu mu wax rek te daa mel ni coupe du la donc ñëpp a koy dajee artistes yëpp donc genre bëri bu benn artiste bu dëgg kaar dem jëli trophée bi indi ko yëpp dañ ko waroon félicité quoi si man lu ma gis mais kaar mooy lool gars yi jàppale kenn. loolu nag dañoo war a jóg jàpp si doomu kaarang parce que lii ma gis ni ndam la boo xamante ne àdduna wërngal këpp yaakaar naa ne ñoom ñoo si war a sax teg seen loxo mu dem comme ça li li nga xamante ni moom mooy turam rek bari ko si mbartal la dañ ko war a teg loxo puus ko mu dem kon donc waa Kaar ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale ki nga xamante ni moom mooy seen doom bi nga ni na talent a dem jongante ji si ay moromam ñoo xamante ni fu nekk la ñuy jógee si biir Sénégal euh, dem nag jëlee fa li nga xamante ni moom mooy trophée bi nga xamante ni moom moo gën a rëy leen ko fii si diwaanu Kaarang yaakaar naa loolu sagu waa Kaarang la kon waa Kaarang bés ni ki tey leen di woo si li nga xamante ni moom mooy seen doom ji ngeen teg ko loxo mu mën a dem waaw ba léegi nii bàyyi uma Zal euh, Zal lan ngay wax population Kaarang ak àdduna wërngal këpp si li nga xamante nii moom mooy jamono juñ toll nii léegi ak góor góorgóorlu ak euh, li nga xamante ni moom mooy développer li nga xamante ni moom mooy suñu réew. waa di wax rek euh, gëm sa bopp rek gëm sa bopp kese laa gis parce que jamono ji kenn waratul xaar dara si nguur may rappeler rek may commencé si aar bi dama doon yéeg sur scène gars yi di ma reetaan alors que léegi gars dañ may réclamer. ku organiser concert su ma ñëwul concert boobu du sax forom donc yaakaar naa ne moo tax ma ne gëm sa bopp rek dama doon commencé di yéeg ñëpp di xaqataay donc ma gëm sama bopp nekk si di ñafe ba instant yi ñëpp a may soxla donc ku nekk na nga jéem a bay sa waar bul xaar dara si gouvernement bul xaar dara si nguur na nga ne lii sama life la sama succès sama loxo la nekk naa ko joobal sama bopp naa fayatal sama bopp ba nga xam ne loolu dina ñëwaat sama loxo mais bul xaar dara ci kenn bul yaakaar dara ci kenn ndax kenn ku nekk yaa ngi jéem a xool nan ngay ñiitalee nan ngay ñiitee sa yoon mu leer donc ku yoonu baayam lëndëm du tala ñiit sa yoonu ndey mu leer yaa ngi comprendre donc ku nekk na nga jéemul sa làmp bu leer nag ñiital sa bopp sa yoon bon ñu gis ne rek euh, li nga xamante ni moom mooy euh, jeunesse léegi dañoo bari ñoo xam ne dañoo nasax dañuy xaar Euh, loxo ñeneen jottali li nga xamante ni moom mooy seen i problème tey ndax gis nga koom-koom boobu ci biir Sénégal bu war a mën a tax jeunesse bu war a mën a tàkku liggéey. mën nañ ne Sénégal tey koom-koom bi am na fi mais ñu ko yore ndax ñu ngi koy jaarale fu ñu ko war a jaarale loolu mooy question bi tey ma jox la exemple suñ frontière bi fii fii li fi wàcc ci xaalis waroon naa mën a defar Kaarang mu nekk ville bu dàq ci Sénégal. mais xaalis boobu fan lay jaar fan la jëm est-ce que ñooñu ñu ngi koy defar si euh, dëkk bu nga xam ne moo ko nekk di produire suñu garage bi frontière bi hmm? donc foofu laa lay waxee loolu moo war a mën a tax jeunes yi ñu bañ a dépendre si koom boobu lu si koom-koom boobu ngay yaakaar pour am dara yaa ngi comprendre na nga jéem sa entreprise bopp na nga doon entre sa entrepreneur bopp ba nga xam ne da ngay créer sa koom-koomu bopp loolu mu jur dara mais fekk fekk yaa ngi yaakaar ci koom-koom bu nekk ci réew mi walla koom-koom bu nguur gi teg loxo di nga tardé waaw Zal dégg nañ li nga xamante ma ak euh, réponse bi ba léegi Zal bàyyiwuma la est-ce que Zal Barigo am na yeneen i projet yoo xamante ni du musical kese waaw waaw bon yaakaar naa ne tey à part bi musique bi dëgg suñu live la comédie bi suñu live la mais lépp soo gisee lu ko tënk mooy réussite donc suñu projet nekkul si dara lu dul réussite ci réussite boobu nag ñun dañ ko tënk ci musique bi ci euh, ci comédie bi ci njàng bi est-ce yaa ngi comprendre mm-hmm. donc suñu projet mënul nekk ci leneen lu nga xam ne nekkul si musique bi nekkul si comédie bi nekkul si njàng bi yaa may dégg mm-hmm. voilà donc suñuy projet ci côté yooyu rek lañ ko teg yeneen projet hors musical ou comédie maanaam si art bi nekkul leneen lu dul di def ay ay activités yu nga xam ni dañuy éveiller la jeunesse te dañ ko def à travers la musique di éveiller la jeunesse di xamal yoon bu baax bi di leen di xamal fan la ñu war a jaar genre yi demee noonu donc loolu moo nekk lu nga xam ne ñu ngi si doon dox te yaakaar naa ne duñu tàyyi di si dox di woon jeunesse bi lan mooy yoon bi nan lañu ñu war a def pour ngir euh, si yoon bu baax bi daal. Euh, Zal kaddu yi rafet na macha allah tontu yi nga xamante ni indi nga kuy tamit leer na. Euh, bon bu ko defee rek euh, ñu daal di jël li nga xamante ne mooy kaddu ngërmande rek euh, di wax ne yaakaar naa ñu ngi lay seetaan àdduna wërngal këpp lan ngay wax li nga xamante ni ñoom ñooy say fans yi nga xamante ni da leen di bëggal saa su nekk ñu lay bàyyi xel ak ña nga amel kaddu ngërmande nga gërëm leen bu ko defee ñu jëm tëj jotaay bi. waaw lu may kàddu yu may tàggatoo rek mooy di wax Sénégal yëpp. Zal Barigo seen doom la seen artiste seen xarit seen doom ndey di wax ne biir 14 régions du Sénégal yëpp ak biir Gambie particulièrement NBR maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp parce que tey su ma fi nekkee di liim du ma fi jógee te ñu may mere dina bëri di wax ne lii di euh, sama famille muy fii ba Ziguinchor ba dakaar hmm, fépp laa am ay famille lii nga xam ne mooy sama mama di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram bu fekkee sama njëriñ lii di team Barigo family ñu nga xam ne saa yu Barigo jógee ñoom ñooy jóg lu ko jëlee si manager bi si coordonnateur bi ah si président d'organisation bi ñëpp équipe bi yëpp bàyyi ma kenn samay xarit samay àndandoo samay ñu nga xam ne ñooy samay camarades euh, les étudiants euh, de l'université Assane Seck de Ziguinchor bàyyi ma kenn plus particulièrement ma groupe G8 maa ngi di gërëm bu baax euh, di sant ñëpp daal amul ku ma bàyyi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne Barigo kontaan na si yéen di leen di wax ngeen xaar yeneen projet fu mu gën a foroxee yeneen trophée Barigo mu ngi koy waajale jëli xanaa mu ñàkk a participer waaye su participer su neexee yàlla yonent bi dina ko indi fii ci Karang incha allah yi macha allah kaddu yi ngir ngërmande yi matale na fépp nag di wax ne ku lim juum rek mbaa doo matal waaye kan bu ko defee rek ñu daal di tàggatool yi nga xamante ni ñu daal di tëj eh, jotaay bi kon nag mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moom moo nekkoon kaddu yi di leen di jaajëfal àndoon ak ki nga xamante ni moom mooy Abdou Mar ak ki nga xamante ni moom mooy tur Isidore di kontaan seen bu baax waa jërë ngeen jëf ah. borom muy naaw.